bon salaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Ibrahima Ndiaye di ingénieur en informatique di président du mouvement Thiénaba Horizon mu doon un mouvement politique citoyen boo xamante ni ñoo ngi ko mettoon en place en 2017 mu nekkoon benn benn synthèse boo xamante ni tous les jeunes presque de la commune ñoo bokkoon même objectif bi amoon dem ba benn instant ñu bokk benn xalaat ñu toog waxtaan toog diisoo ku ne indi sa xel ku ne indi sa xalaat ku ne indi sa tuuti doole bi nga am ñu mettre en place ce mouvement boobu moom la ñuy doxal depuis 2017. Euh, mouvement bi li ko tax a jóg d'abord mooy fexe ba dëkk bii nga xamante ni amuñu lu dul moom muy Thiénaba la commune de Thiénaba fii la juddoo fii la ñu màgge raam ci suuf si mëq si suuf si jànge fii di lu ñu am Thiénaba la ñu xool ni dëkk boobu ba mu amee mu mu nekkoon parmi les les les les rural rurales test les premières communautés rurales yi nga xamante ni Sénégal moom la ñu implanté woon en place en 1976 Thiénaba moo doonoon euh, communauté rural test bi ñu xool ni depuis 1976 jusqu'à présent avec le président communauté rurale yi fi jaar yëpp ba ñu egsi si maire yi ñu gis ni Thiénaba soqiwul benn pas vers le développement loolu nag métti ñu ni on va pas être des spectateurs toog croiser les bras dañuy def un mouvement boo xamante ni incha allah buñ ca eggee parce que askan wi rek ñoo am doole dénkaane ñu tàllal askan wi avec un programme boo xamante ni bien déterminé un programme très ambitieux pour que ñu mën a dem yóbbu suñu dëkk bi nga xamante ni amuñu lu dul moom vers le développement comme yeneen commune yi nga xamante ni ñoo ngi ko créé après commune de Thiénaba. loolu lan moo ko mën d' c'est pas à moi de le dire il faut ngeen dem vers les populations ngeen laaj leen impact Thiénaba Horizon dans tout ce qui dans les secteurs clés dans les secteurs yi nga xamante ni dañ ko décentraliser la commune moom la le l'équipe municipale qui qui est la ñoom moom ils sont abonnés absents ñun nag on essaie de prendre le relais malgré que nous ne pas encore élus mais ñoo ngi dem au niveau de l'éducation di xool nan lañ leen di mën a appuyer boo demee eh dans les mouvements de jeunes mais on fait aussi surtout surtout dañu nekk ci dëkku sutura nag mais on fait